sëñ tubaa suñu sëriñ radiyallahu anhu ku ne xam na ko ci bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa wax na ne bi mu tàmbalee gàmm ci atum jay ay ay sasin la nga xam ne jàpp naa ne ci Sénégal moom bu fi amee ñu fi njëkk tàmbalee gàmm sëriñ bi it mu fonkoon ko lool daan ko defal boppam euh, ñu nettali ñu dégg ci li ci mag ñi sëñ Modou Khari Bousso mm. mi nga xam ne jëflante na ak sëriñ bi ci lu bëree bari mu wax ne guddi gàmm bu mosaan ñëw ci lañuy ñuy yëg sëriñ bi bu ñu toogee di di di di gàmmu dafay génne ay parfum di leen ko xëpp di génne ay yére ay bernde mboolem lu nekk ci kër gi da koy génnalu ñoo xam ne dañuy dañuy dañuy gis ne sëñ bi dafa bëgg lool nga xam ne lu ko waaye di wax sax da nga daan bàyyi ba weeru gàmmu ñëw nga doog ko wax ndax mbégte mi mi àndal wane na ni mu ko daan defee mooy dafay wut ñetti kuréel kuréel boo xam ne dafay jàng jas bu ak kuréel boobu dafay jàng muwaahibu ak kuréel boobu dafay jàng muqaddimat ak kuy jàng barsan jiyu su defee ñetti kuréel yi bu ñu jàngee benn bunt fukki bayit ak ñaar ñiy jàng ñiy jàng ñiy jàng yaakaar naa bëri na ñu koy répété ba ci noonu la ñuy wéyal ci jumaa ji fii ci daayira Muxaddamatul Xidma di ko nañ ne wax nañ ne sëñ bi booba ci lakko lañu euh, leben yi yaakaar naa mooy sikki moom la ñuy wax sikki léegi moom lay génn di ko tuur jàngale jàng ñi jàng di tàngalal ci boppam ak ataay ak meew lépp loo xam ne nii bu nit jëfandikoo bernde la rek sëñ bi da ko daan génne di ko jëflante nit ñi te it wax nañ ne bis boobu bëri na ci njaareem ñoo xam ne bis boobu bis boobu naan seen sëñ bi dañ daan gis ci mbooloo mi li ci des dañ ko daan séen rek ci barrière bi nii mu génn dem ci jàkk ji julli dëppaat muy bis bu mu fonkoon lool diguloo nit mboolem njabootam fu mën a nekk ci ay seex lu mën a doon ñu ñu koy fonk bëri na ñoo xam ne ñoo jàpp ne duñ gàmm li waral loolu mooy sëñ bi dafa digaloon kenn ku ne fa nga nekk nga ko fay gàmmu waaye bëri na boo boo génne woon dëkki murid yi gàmm ci Sénégal daanaka gàmmu jeex ndax sëñ bi da kenn ku ne fa nga nekk nga koy nga ko fay dundal sëriñ Saliou Mbacke radiyallahu anhu boo gisee bu daan woote appel màggal bu noppee ci màgg gi day wax ne màgg gàmm gi it ko ci boole dundal ko sunnal noonu la ko digle woon ñu ko dundal ci ci ci ci ci jumaa ci dëkk yëpp di ko dundal ci dëkk bi yaakaar naa Touba moom penc moo fa dem ñeneen gàmm rawatina ci pencu mag ñi ku ne gis na ne at yi weesu moom boo dee xool image yi da jàpp ne lii dajee ci gàmm ci Touba sax nga du gajee feneen kon kon taalibe yëpp ni ñu leen di ñaax ñu gën ko fongu nga xam ne guddi yonente bi sallallahu alayhi wa la ndax kenn ku nekk ci ñun ñi nga xam ne lu ñuy bu sa bisu anniversaire ñëwee dangay ngay gis ngay statique def lu ne say xarit ñëpp di la si waaye sa anniversaire rawatina nag guddi goo xam ne guddi yonent bi sallallahu alayhi wa euh, waaw euh, bidaa ci ñenn ñi liñ jàpp ne mooy bidaa ak li nga xam ne ñun moom lañ jàpp bidaa ndax euh, lislaam dafa xaaju ci ay njiir ñun ñi nga xam ne dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy woo ci wàllu tasawuf ñun jàpp wuñ ko bidaa ndax lépp loo xam ni jaamu yàlla rek ci berne la ci ci ci lu neex l'islam rek bu ko ñu def ca teg ci ak sellal loolu wuta nekk bidaa xëy na nag ñi nga xam ne yeneen gis-gis la ñu am ak yeneen jàngin la ñu am ñoom wax loolu waaye nag boo leen toppee dëgg-dëgg duñ ko teg ci ci ci islaam lu dëgër ci teg ndax ku la bi daal rek moom ma ngay def leneen loo xam ne tuddoo ko bi daal ca ca loolu gàmmu ko gën gàmmu jaamu yàlla la sant la jaamu yàlla la jàng alxuraan la jàng ñi jàng ay burdu ca burdu lu mu doon tàgg yonente bi sallallahu alayhi wasallam bu dee ñeneen ñi ngay jàng ci ñaan ya nga xam ne a ñaan di ñaanal yonente bi ci ñi wax ne bidaa la bu amee doom bu bis ba delsee dana ko ngénte doxoon la ak yonte bi nga xam ne moo gën ñëpp wa sallam